أعوذ بالله بسم الله والحمد لله وصلى وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وآله وصحبه وخديمه أج أك همرة دال يتأجو دفا bari lool neexuta waxtaane ci benn kaset waaye dañuy jéem indi li ëpp solo ci yooyu yaar ci benn kaset bi noo ngi yalwaan ku am kaset bi mu jotli ko kum defe ne dana ko yittewoo lu tàmbalee waxtaan wi ci jullit rawante na ab taalibe fu mu toll war nay fàttaliku ne jëf yaaree tax yàlla nangu ko benn ba mooy seetlug yéene ja yàlla kese kese tax mu di ko def ñaareel ba mu dëppoog rëddu sharia maanaam mu defee ko nañu ko diglee bu ca yooyu yar dajee yaakaar nañu ne yàlla dana ko nangu bu ca benn ñàkkee nag duñu ca yaakaarati nanguk yàlla kon ku yéene aji wala umra wala sax jeneen jëf na jéem xam lépp lu ca aju bu fekkee xamu ko woon day fexe ba lu mu ca tollu rekk te umpale ko laaj ko ka ko xam te maandu lu mu ko ca wax mu def ko ndax bu ñu nee sàkku xam-xam farata ci bépp jullit muy góor muy jigéen xam rekk la mu tolloo ci ak dundam lañ jublu araam na ci ab jullit muy songu jenn jëf mbaa muy song dara daal te xamut la ca lislaam wax balaa sañ dugg ci menn mbir rekk bu ko xamut da koy laaj ku xam te maandu lu ko ca wax rekk mu jàpp ca loola ku bëgg aji mbaa bëgg umra jiitam itam na farlu ci alal ja nga xam ne moom lay jëfandikoo moo xam la muy paase la moo xam leneen la muy jëfandikoo daal lépp na nekk lu lew ndax alal ju araam ku ko aje duñu wax ni amoo aj ba dangay ajuwaat waaye dañuy wax ne aj ga duñu ko nangu su waxee labbayka ñu ne ko laa labbayka wala saadayka yow daal bul fi wax mukk labbayka nu far jàppale foofu ne lislaam day araamal laaj nit ñi seeni alal ci lu dul amee lor ju mette metti te amoo nenn noo ko faje lu may laaj koo xam ne daal lor na ba àgg ci amut lu mu lekk mbaa mu rafle ba amut lu mu sol mbaa mu lott ci fu mu fatu te amul menn pexe daañu ko may ci yoon mu laaj ba am lu mu faje lorom ba tey mayees naa jàppale foofu ne lu ñu jekki-jekki jox ko nit te laaju ko wanewu ci ak bëggam gu ëpp ba ñu jéppi ko jox ko ko loole mën naa nangu lew na ko na ko addis ba waxee lu may nag ka koy jox daa am lu mu jort ci moom ba tax mu di ko jox te moom mi ñuy jox wóor na ko ne loole ñu jort ci moom nekkul ci moom kon du sañ a nangu wala boog bu mënta ñàkk nangu bu ko nangoo da koy defalaat ci leneen loo xam ne yaakaar nañ ca tuyaaba walla wala bokk bu ko téyee jëfandikoo ko itam mu fexe ba jox koo ko lu toll noona mbaa lu ko ëpp ku am yéene dem màkk itam balay dem na toppatoo gannaawam ba mu leer lépp lu jara leeral mu bindulu ko sàkkal koy seere rawante na ni nga xam ne moom la wolof yi aada woo def di faral la séq loo xam ne ñoom ñaar ñi ko séq wala ñoo mbooloo ma ko séq bind ñu ko fenn sàkkaluñ ko yenn seere dañoo doyloon ci seen diggante rek lu mel noonu su kenn ko génnee àdduna rek mën naa am du lijjanteku lislaam sax nam ñëwee ci addis day santaane ab jullit muy dénkaane fu mu tollu di leeral gannaawam doonte sax demul fenn dara dalu ko lépp lu mu bëgg rekk gannaawam ak lu mu bëgg mu bañ a lëj na koy teel a wax di ko leeral di ko wutal ay seere yu wóor mu fexe itam balaa dem wut ñaari xasida nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko def benn bi da caa ñaan ku ko yóbbaale foofee yore ko lépp loo fa bëgg rekk yàlla defal la ko mu tënke xasida ga muhammadukal jamil mu tàmbalee madhun nabiyil muntaqa zaadun ila beyti ilahi naasi waahibil ilah ba ca des moom da koo tënke allahu muhammad mu tàmbalee awsil bi xaqi wajhikal karimi xaamila daa lil bayti bit takrimi xasida gii moom mu tënki allahu muhammad nee nañu ku ko yóbbaale faaw rekk nga dellusi ci jàmm incha allah yaari xasida yooyu bare nañu ku ko yittewoo rek dana yomba am day fexe ba fu mu toll rek yoraale yaari xasida yooyu di ko def fa nga xam fa lay def ab yóbbalam nga xam ni nga xam ne ab yóbbalam du tàggook moom ñaari xasida yooyu duñu tàggook moom bu ko mënee jàng ak bu ko mënta jàng su ko mënee jàng boole ci nag lay gën a baax am na it ñaanuk bisub arafa boo xam ne Sëriñ tuubaa moo ko def ñu koy jàng ci bisub arafa kon na fexe ba yóbbaale ko moom itam yomb naa am moo tàmbalee xamdan liman akmala yawma arafa diina nabiyil mustafa wa sharafa na fexe ba yóbbaale xasida googu bu taxawee arafa jàng ko fa lu néew néew benn yoon su ko baamoo ñetti yoon lay gën mu fexe nag ba bu tolloo ci xeeti waajtaay di dem ak dikk ak bu nekkee ci yoon wa ak bu nekkee foofee ca barab yu sell ya nay farlu ci julli farata bañ koo raw ndax julli moom gannaaw gëm yàlla moo gën a màgg ci lislaam àgg na ci ñu wax ne guddi ga nga xam ne ci la ñu war a taxaw arafa nga xam ne bu dee ci yoonu Maalik fa ba soye digganteem ak fenkuk fajar soo fa taxawul arafa rek aj raw na la ba déwén nga ñëw fay si ko guddi googee boo yeexoon a julli gee ba àgg ci nga xam ne digganteem ak fenkuk fajar boo fa dee julli gee rek taxaw arafa raw la te fekk booba taxawagoo arafa ko it danga war a julli gee te bàyyi arafa raw la bu déwénee nag nga dellu si fay si aj googee waaye du sañ taxaw arafa bàyyi julli geega mu di ko raw loolu nag moo tax kon na bu baax a baax ci julli juróom ak fu mu man di toll waxtaan wi nag dañu ci topp yoonu al imaam Malik yàlla ko yàlla dolli gërëm ndax tënku ci mel ngir sax bu dee ci zahir am na ñu ne warut waaye waa kër sëñ Tuubaa moom tënku ci yoonu al imaam Maalik waru gar la ci ñoom mënta ñàkk ndax sëriñ bi mooy na ko digal te bind ca bind mu leer leer moo xam ne sëñ muxtaar bintaloo moo ko doon laaj lu aju ci bismillahi rahmaani rahim ci boo dee julli wax ko ñàkk ko wax ca fatiha jaag yooyu sëñ bi ne ko dénk naa leen ngeen jàpp ci lëwér ci téere maalik yi su ngeen ma gisee sax may def loo xam ne daa wuuteeg loola te digaluma leen ko bu leen ma ca roy xam leen ne loola day lu ma yàlla jagleel te bëgguma ngeen roy ma ca yéen jàppaleen rek ci lëwér ca téere yi maaligi ya yaxub dënkaane boobu jàng naa ko ba tàyyee tàyyi ci ay njëlbeeni téere fiq xëy na jërul may jàngaat jëmmi yax ba ñu bari xam nañ ko mu daaneele dénkaane ba jàppaleen rekk ca lëwér ca téere yi maalik yooyee daldi ne ngirum Maalik lu laaba laab la lu leera leera la te itam loolu lépp xéewal la ci taalibe yi rekk ndax jamono ji ni wuute yi baree ni xam-xam yi bare ni ubbeekat yi baree ku yàlla may sëñ bi tànn la ne la jàppal ci nàngam doy na boo ko doyloo rek nopp lu nga faw tey ak ëllëg foo toll di ànd ak xel mu dal xol bu dal doo sikki sàkka doo jeexi jekki di weranteeka làmbatu kon mën na noo tàmbalee ci wax ne aj màkka farata ci bépp jullit boo xam ne kàllafe na mën na ko te amul ngànt luy te mu def ko moo xam góor la moo xam jigéen la waaye nag farata la benn yoon rekk addis ba ne alxajju marra faman zaada fa huwa tatawwu ku aj benn yoon nag muy farataam su ko mënee mën nay ajuwaat muy ajug naafila di lu bare bari tuyaaba ba tey taamu nañu sax su ajee ajug farataam ba àggal bu ca tegaatee juróomi at dellu ajiwaat kon juróomi at yu ne daal su ma ne delluwaat rek mu delluwaat ndax la addis ba wax ne jaam boo xam ne daal may naa ko wérug yaram may ko mu amuk yaatu amuk man am wërsëg mu toog nag juróomi at bañ ma seet si ci sama néeg bu tedd bii kooku moo xañ boppam moo xañ boppam daal lu baax xadis boobu ibnu xibbaan andi na ko bu amee luñ ca wax itam amu ca solo manees na ko jàpp inna xabdan sahahtu lahu jisma wa wasaatu alayhi fi lmaisha yamdi alayhi xamsatu awaam laa yafidu ilayya la mahruum bu ñu nee aj màkka kam war mooy julit bu kàllafe man te amul ngant bu dee jigéen dañ cey boole mu am jëkkëram ju mën ànd ak moom mbaa ab araamanteem maanaam koo xam ne araam lañu ñu sëy ñoom ñaar mu mën a ànd ak moom teew nag bu dee ci yoonu Malik moom bu aj ga dee aju farata jigéen ja nekk ku ñu wóolu ku ñu doyloo mu am ay àndandoo yoo xam ne ñu ñu wóolu lañu ñu ñu doyloo lañu kon mën naa dem aj màkka nag moo ko umra lu ci nekk ngën ji mbindéef wax na ci ay ngëneel yi bokk na ci addis bi wax ne man xajja haadal bayta falam yarfud walam yafsuq xaraja min dunubihi ka yawma waladathu ummu mbaa ka yawmi waladathu ummu ku aj néeg bi te moytu yàlla ci wax moytu yàlla ci jëf daal di seet ci ay bàkkaaram ba mel ni bis ba ko ndeyam juree addis boobu muttafaq alayhi la maanaam buxaari ak muslim dañ caa dase te addis bu mel noonu moo gën a wér ci addis am na beneen bu wax ne alxajju almabrooru laysa lahu jasaun illa al janna aj goo xam ne dara lu ñu ca taamuwut amu ca te lañu ca taamu am na ca àjjana rek kay payam hadis boobu albuxaari yi andi na ko umra moom wax ji ca gën a wóor mooy def ko benn yoon sunna su dëgër la du tee nag su defee benn yoon mën na at mu ne su ko mënee mu dellu defiwaat ko muy lu ñu sopp tey lu baree bari ngëneel ak tuyaaba am na addis bu ne diggante xumra gu nekk moroom ma jaam ba tàggoon ak bàkkaar ca defoon al xumratu ilal xumrati kafaaratun lima baynahuma omra ci weeru koor nag moom moo rëy ngëneel lool ba addis ba wax ne omra ci weeru koor daayam ak aj màkka ànd ak man te addis boobu buxaari ak muslim dañ caa tase umratun fi ramadan taajilu xajjatan maay kon lu jàll wax ne aj màkka am na ñeenti ponk mbaa nga ne ñeenti farata ponk nag mbaa farata mooy loo xam ne su manqué amut leneen lu ko mën a wecci bu ñu nee armal farata la mbaa ponk la koo xam ne armaloo rekk tàmbaliwoo dara ba ñu lay wax dara bu ñu nee it taxaw arafa farata la taxaw arafa ku mu raw aj raw na la xaar ba déwén nga ñëw fay si aj googee rek moo ca mën a am bu ñu nee dox safa marwa farata la tawaaful ifaada farata la dal di jàpp ne ku xës taxaw arafa li fekk ngay def yaar yooyu doo yewi ku mukk mukk ci sa dund yañ la aaye woon ci armal yépp dañuy sax dina ko aaye ba kere ngay def yaar yooyu muy ndox safa ak marwa ak tawaaful ifaada tayit bu yeexee dox ga safaak marwa ak tawaaful ifaada ba weeru tamxarit teru war naa fay alamaan ndax ndax génne na leen weeri aj yi mooy ba dugg ci tamxarit door leen a def omra mi nga waxoon ne suna su dëgër la benn yoon am na ñetti ponk mbaa nga ne yetti farata yoo xam ne mook aj ñoo ko bokkule muy armal gi ak wër ga ak dox ga safa ak marwa taxaw arafa nag moom la aj am te umra amu ko daañu farala tudd sax sunnay aj ni ki ni koy jàngee ci tasawudu sixaar waaye day am li ñu tuddee sunna te fekk muy warugar woo xam ne soo ko bàyyee alamaan fekk la ca moo tax aj ñu wutal ko ay wari gar moo gën a neex a jàpp teewul nag mu am ay sunna ba tey waru gar wuute naag farata ndax waru gar soo ko bàyyee te tey ko da nga ci am bàkkaar bu dee fii ci aj sax daa am wari gar yoo xam ne boo leen bàyyee rek am alamaan bu ñu lay teg daan wax wari gar yi ca kanam waaye dañoo bëgg a jëkk tudd yi nga xamee ne boo xasee armal dugg ci aj gi mbaa xumra gi dañu la koy aaye ba ba ngay yewiku yewiku ñaar la am na yewiku bu ndaw am na yewiku bu mag kon nag jàppal bu baax lii may bëgg a wax te tàmbalee ko ci ku armal am na yuñ ko aay yoo xam ne bu ko defee lam armaloon yàqu moo xam aj la moo xam xumra la am na luñ ko aay loo xam ne su ko defee lam armaloon du yàqu waaye daa war a fay li ñuy wax ak joto ñu koy tuddee al jotu am nag loo xam ne aay nañu ko ko waaye bu ko defee itam lam armaloon du yàqu te it duñ ko joteeg genn joto naa daldi wax lan mooy jotoo ba nga xamee ne saa yu ma nee war naa fay jotoo rek fekkoon na nga xam luy jotoo ga jotoo day yatt yoo xam ne lu ko ca neex tànn def ko benn ba mooy rendi ab gàtt te fu ko soob la koy rendee bu ko neexee sax bàyyi ba ñibbisi door koo rendi ak leel juróom-benni miskiin kenn ku ne benn kilo lépp di juróom-benni kilo ak woor ñetti fan suñ ko nee war ngaa jotoo rekk yett yi lu mu ca tànn def ko baax na say boo kon mu njëkkee yi ñu ko aaye bu armalee te nga xam ne bu ko defee rek la mu armaloon yàqu ba ci jëkk mooy génne maniyu ci loo xam ne moo ko tey sabab lu ko doonte sax ci xool bu yàgg la walla xalaat bu yàgg ñaareel ba mooy joteeg góor ak jigéen say boo takk ne waxtoomu armale ba ba muy taxaw arafa moom bu fi jote googu amee rek yàq aj ga ba tey guddi gi mu taxawee arafa bu ca jote ba amee yàq aj ga bu guddi ga jàllee mu jàll ca bëccëg ba nga xam ne mooy bëccëgu fukkeel ba nga xam ne ca lay sànni yi àq ba ca lay def tawaaful ifaada bëccëg boobu li fekk nga xam ne fugul kenn ci yooyu yaar bu jote boobu amee rek yàq aj ga bu xasee def kenn ci yooyu yaar nag door a def jote googu aj ga du yàqu ba tey bu fekkoon ne bés boobu jàll na ba àggal defagul sax kenn ci yooyu yaar waaye bis boobu moom xas na jàll rek bu jote gi amee itam du yàq aj ga bu ñu nee nag yàquwut kon dañ koy alamaan mu def addiyu umra itam jàppal ne ku ko armal li fekk muy dox safaak marwa ba àggal su génnee man yu noonu ci tey wala mu def jote googu rek umra ga yàqu na bu fekkoon ne nag armal na umra wër kaaba dox safaak marwa ba àggal nga xam ne watu mbaa jemp rek la defagut mu daldi jote kon umra ga moom du yàqu waaye ba tey daañu ko alamaan mu def addiyu naa daldi wax lan mooy addiyu ba saa yoo ko déggatee rek fekkoon na nga jàpp ko addiyu mooy xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem ga nga xamee ne da koy wurt bu dee lu ñu rendi mu rendi ko fañ ko ko digale bu dee lu ñu loj mu loj ko fañ ko ko digale at yi kon la ca gën féete kaw moo di gëléem la ca féete suuf nag mooy gàtt manees naa wax nekkoon ñu seq ab sëy rek buñ àndee aji nañu moytu bu baax a baax jote ca sawukaay mbaa sax laalante ci yaram ndax jote googu bu amee day waral juróom ba ci jëkk mooy ndegam ñoo ko coobarewu def ko daañu ci yanu bàkkaar bu rëy rëy ñaareel ba mooy lañu armaloon yàqu na moo xam aj la moo xam umra la ñetteel mooy muy aj muy umra boo ko yàq itam du tax nga daal di koy bàyyi noona noppalu day war nga àggale ko ba mel ne yàquwut ñeenteel mooy moo xam aj la moo xam xumra la boo ko yàqee faw danga koy defaat bu dee aj faaw mu bàyyi bu déwénee mu ñëw fay si ko bu dee omra na taxaw temm ci fay ko na mu gën a gaawe juróomeel mooy boo yàqee aj mbaa xumra itam am na addiyu bu ñu lay alamaan nga war koo def ñu koy tudde hadiyul fasaad kon mën ngaa takk ne jote googu moom bu amee ci waxtu wanu ràññeeloon faaw rekk mu yàq lañu armaloon moo xam cig tay la moo xam cig ñàkk tay la ba sax bu jote woon nag loo xam ne du doomi aadama ni ki am xar wala wu bëyit du tee rek lam armaloon yàqu na génne ga man itam lañ ca waxoon rekk ndegam moo ko sabablu doonte ci xalaat bu yàgg la mbaa xool bu yàgg la du teemu yàq lam armaloon su fekkee nag la génn du man yu la kon addi yu moo koy war waaye lam armaloon yàquwut nu jàppale foofu ne ni ñu aayee jote ga noonu lañu aaye yey jiitu jote ni laalante ci yaram walla fóonante fóonante boo xam ne bëgg bànneex moo ko waral bu dee fóonante tàggoo wala yërmaane moom ayut nu far leeral ne fu ñu ko fi digale addiyu te mënu ko am benn amul njëgg mbaa gisu ko ba di ko jënd day woor ñetti fan ca ba mu nekkee ci aj ga te bu delloo nag wooraat juróom-ñaari fan boole ca muy fukk man nga caa teg ne jigéen moom bu armalee du tey mën a sol yére yu ñu ñaw dañ koy aay kay mooy muur kanamam mbaa muur ay tenqam ni ki sol ay gaa te sax kanam gi bu bañee teg fitna góor ñi muy taseel mën naa bàyyi la mu muur ci boppam mu yooro ba muuraale kanamam te nag mu bañ koo yeew ca kanam nga bañ ko ca pinge mbaalu ko nuru bu defee liñ ko aaye mooy loole mu yeew ko ci kanamam mbaa mu ko ca ba mu dëgër daldi di war a fay jotoo bu dee ci yoonu Maalik jigéen may nañ ko mu takk jaaro ci baaraamam waaye nag mayuñu ko mu takk ab lam mbaa jara ci loxoom mbaa montar góor nag moom bu xasee armal dañ koy aaye lépp loo xam ne mën naa wër ab cër ci cëri doomi aadama moo xam dañ koo ñaw mbaa dañ koo faste mbaa dañ koo ràbb ba mën a wër ab cër ci ay cëram moom doomi aadama ba sax ab jaaro mbaa montar mbaa sax wékk rek kurus ci baatam yépp ay koy aaye moom góor bu xasee armal moom góor ba tey du saña muur boppam wala kanamam ci dara moo xam lu ñu ko baaxoo na muure la mel ne mbaxana mbaa kaala mbaa leneen ni ki xeeti morso rekk day bàyyi rek boppam muy boppu kese bàyyi kanamam muy kanamu kese kon moom góor na ko wóor ne sañuta sol ay kawas sañuta takk ab jaaro ci baaraamam sañuta takk montar itam mën naam nag nga dégg kuy waxee ci weneen yoon wu bokkut ak malik ne yooyu ayut waaye bul fàtte ne man maa ngi waxee ci yoonu al malik Malick loolu ñu ko aaye moom góor ci muur kanamam mbaa muur boppam bu ko defee te jël ba xaw naa yàgg ba amal na ko njariñ mel ne fegal na ko tàngaay mbaa sedd rek mu daal di war a fay jotoo gañu la waxoon nga seetlu ne bu ñu nee góor bu xasee armal dañ koy aaye lépp lu mën a wër ab cër ni ki mbub mu ñaw xamal nag ne loole mu wërale ko cër ba mooy aaye waaye mu sàngoo ko ci misaal du wàññi dara xanaa rekk mu fexe ba bu ko dee sàngoo itam baña a muur kanam nga baña a muur bopp ba ndax aaya woon nañ ko muur kanamam ak muur boppam bokk na ci li ñu aaye képp ku armal moo xam góor la moo xam jigéen la dindi wex walla dindi kawar wala dindi taq-taq boo xam ne du sobe ba tey du saña rey lu mel ni aw teeñ mbaa fel mbaa lu ko nuru mën ngaa leeral nag wenn wex ci ay weexam bu fekkee dafa damoon mu dindi rekk la ca damm dara du ko ca war su fekkoon ne it daa wenn wex waaye bëgg a def garab ca foofee weewa nekkoon rekk moo ko waral kon day fay jotoo gu mat sëkk su fekkee nag lewi gam lewi wenn we topp toog bakkanam rekk la ab ñaag lay war a joxe seetal loolu war na laa jaaxal ba mu lewee wenn we ngir fajtal fa weewa nekkoon dañ koo fayloo jotoogu mat sëkk te nag bi mu lewee wewa ngir topp bakkanam rek dañ koo fayloo benn ñaag fayloo ko jotoo gu mat bu xësee lewi nag lu ëpp wenn we moo xam ci loxo yi la moo xam ci tànk yi la daldi di war a fay jotoogu mat sëkk ki armal dañ koy aaye wat kawar mbaa nga ne dindi kawar su fekkee daawat kawar ga ba am lum ci dindi waaye bëgg a fajtal foofa moo tax kon day fay joto gu mat sëkk su fekkee nag lam dindi dafa tàmbalee ci benn kawar jëm ñaar jëm ñett ba ci fukk rekk waaye ëppul fukk te itam fajtal waralu ko benn ñaag benn ñaag rekk la ca war a fay nga seetlu ne fa mu amee ngànt bëgg dindi lor moo ko tax a def loola moo gën a diis lañ ko ca teg aaye gi ñu ko aaye woon rey lu mel ne teeñ li dale ci benn teeñ ba ci fukk bu ko reyee benn ñaag la war a joxe te nag rey teeñ wa ak seppi ko sànni ñoo yemoo àtte ndax luy dund ci deret boo ko dindee sànni moo ko rey ko ñooyam su reyee nag lu ëpp fukki teeñ moom day fay jotoo gu mat fu ñu la wax ne la na joxe ak jotoo xamal ne mu tey loole ak mu ñàkk koo tey ñoo yemoo ci kaw joxe ga muy joxe jotoo googee fa ñu wute kay mooy ka tey moom da cay boole amee ca bàkkaar te ka nga xame nag moom teyut du ca am bàkkaar nga jàll teg ca ne moom ma armal muy góor muy jigéen dañ koy aaye diwoo diw goo xam ne da caa jubloo nëtëxal yaramam rafetal ko moo xam am na xet gu neex moo xam amul xet gu neex su fekkee ne moom rafetal rek yaramam moo tax moom du ko sañ bu loola amee sax xet gu neex moom moo xam ngànta tax ni ki faju walla topp kanam la ñoo ci yam bu loolu xasee ne xet rek faawum war a fay joto su fekkee loolu neexul xet nag mel ni karité te faju rekk a tax ngant tax kon bu ko yemalee ci biir teng ya ak biir ndëggu ya moom ñépp nee nañu jotoo du ko ca war fa ñu wute kay mooy loolee neexul xet ngant tax itam mu di ko diwoo waaye nag yemul ca téng yaag biir ndëggu ya foofu am na ñu ne war naa fay jotoo am ñu ne warut a fay jotoo nga jàpp ne itam ka moo xam góor la moo xam jigéen la dañ koy aaye fuddanu mbaa tusngalu la nga waxoon nit ne du sañ a dindi taq-taq boo xam ne du sobe daañu ko may ay loxoom ci boppam bu taqee mbaa biir ay wexam taq daañu ko may mu raxase ko loo xam ne mën naa dindi taq-taq ya te doon lu amul xet gu neex maanaam tey saabu bu neex xet du ko mën a raxasoo ngir setal ay loxoom mbaa biir ay wexam lu amul xet gu neex kay lañ koy may mu raxasoo ko ba tey dentifrice yooyu neex xet du ko mën a jëfandikoo bu ko neexee nag yor borosu kese boo xam ne defu ci dara bu bëggee jàpp rekk mbaa bu bëggee setal ay bëñam rekk awale borosu ba ca bëñ ya te bañ caa def pat bañ cee def ñoom ni ñu waxe mooy dañoo bëgg muy fagg ak a fundooñ mu wane melow ak njaam moo tax lu ko taq ci yaramam loo xam ne du sobe lu ko soof-soof bu ko dindee rekk ngir ne lii dama soof daldi di war a fay ak jotoo saayu yaramam mbaa ay siram taqee sobe moom dana ko war a raxase ndoxum kese ndax dindi sobe sa ba tey yére armal ya mu sol bu ko neexee summi ko sol yeneen duñ ko wax ne ko yére yi nga armal rek moom ngay sol di wéy bu ko bëggee summi mën na koo summi sol yeneen bu ko wóoree ne yére yi lu mu ca mën rayaali bu ko dee fóot amu ca mel ne teeñ kon dana ko saña fóot doon ci sax taqul sobe bëgg yére yu set rekk du te sañ na koo fóot nga teg ca lat gët moom nag dañ koy def ñaari xaaj lat ko leñ mbaa gët gu góor ak gët gu jigéen muy góor muy jigéen bu xasee armal araam na ci moom muy fóon ci bakkanam mbaa muy taqal ci ay siram ci yaramam lat koleñ bu jigéen lat bu jigéen mooy boo xam ne xet ga day am doole lool te boo ko laalee mu taq la bu baax a baax boobu lañ aaye ka armal moo xam góor la moo xam jigéen la araam na mu di ko jëfandikoo ci genn wet lat ko bu góor nag mooy boo xam ne xet ga amul doole te boo ko laalee du la taq bu baax moom dañu ko sib rekk waaye amul jotoo guñ cay fay lat ko bee ñu wees woon nag muy bu jigéen ba moom bu ko jëfandikoo rekk daal di war a fay jotoo ga xam nga caa teg ne bu dee góor dañ koy aaye sol ay bot lu may nag nga xam ne dafa amul yeneen dàll kon daañu ko may mu sol bot ya gannaaw bu daggee bot ya ba mu gàtt ba nga xam ne ay dojaram day feeñ waaye bot ya du ko làq nga teg ca rëbbu rëbb xëy na xewatul léegi waaye jàppal ne muy góor muy jigéen bu xasee armal aj mbaa xumra ba ba mu yewiku dañ koy aaye rëbb aw nundat rab woo xam ne daal yàlla mi ko sàkk da ko dëkkal ci suuf si mbaa muy boole ndox maag suuf si di nekk ci suuf di nekk ci ndox ne bu dee loo xam ne yàllaa ko sàkk dëkkal ko ci ndox mel ni jën moom armal du mu sañ napp jën waxilla lakum saydul bahri wa taxaamu mataaxal lakum wali sayaara wa xurima aleykum saydul barri maa dumtum xurumaa bu ñu nee rëbbu wu dëkk ci suuf si mbaa boole suuf ndox suñu ko rey xamal ne suñu koo dàq suñu koo tiital suñu ta wonni ay nenam suñu koo def nenn ndegam nag bu moom daanaka xewatut mën naa cee bañ a sori ci wax àtte ya muy gudd xanaa leeral ne addis ba ne am na juróom yoo xam ne ay kàccoor lañu sañees na leen rey moo xam day ca biir xurum moo xam day ca bitti xurum janax mooy benn ba ndax daa bari ak yàq te nee nañu leneen lu mel ni moom bari yàq itam sañes na ko rey jiit ak jaan mu daal doon yet liccin liccin dara nañu ko xam mbaa ñu dégg turam ak xaj buy bawee ka màtte te nee nañ buñ ne xaj buy bawee ka màtte dañu jublu rekk lépp luy xeetu degment maanaam bépp rab buy fàdd xëtiya foofe ak petax ya nag moom lañu diisal lool wax ne menn xëtima mbaa menn petax ma ab gàtt lañ ca war a fay su amul gàtt ba woor fukki fan nga teg ca nag wax ne góor bu xasee armal li fekk mu yeewiku du sañ a maye soxna kenn du ko mën a may soxna jigéen ba tey bu aramal mu yeewiku kenn du ko mën a may jëkkër kon yooyu mooy yi ñuy aaye ku armal ba ba muy yeewiku ci la mu armaloon kon nag mën nga déglu bu baax fii kat la ñuy tàmbalee waxe aj gi na mu tegaloo loo def xam la nga cay teg jàppal ne la jëkk-jëkk ci aj gi mooy armal armal nag mooy dogu ci sa xol ci def aj googee mbaa xumra googee moo xam aj la moo xam xumra la boo dogoo ci sa xol ci def ko rek dal nga koy armal daa am nag yoo xam ne laata ngay fas yéene jooju mu tudd armal danga koy def ak yoo xam ne soo fasee yéene ji ba àggal nga koy def waaye daal jëmmi armal gi moom jàppal ne boo dogoo ci sa xol ci def aj ga mbaaxum raga rek dal ngay armal man ngaa teel a jàpp ne it yéene jooju nga tudde armal bu dee fii ci aj yetti xeet la yu bokkut boo yéenee aj rekk def ko ba àggal moo xam teg nga ca xumra moo xam tegoo ca xumra moo tudd al ifraad boo yéenee xumra kese def ko ba àggal door caa teg acc loolu moo tudd at tamaton ñetteel nag mooy nga yéene yaar yëpp yéene xumra yéene aj benn yoon rekk mbaa nga yéene xumra laata ngay def dara ci ay ponkam yéene aj teg ca loolu moo tudd alxiraan alxiraan day firi lëkkale maanaam boole ba tey nag mën naa yéene xumra kese ba tàmbali koo def laata ay ponkam di mat mu daldi di yéene aj teg ca loolu ba tey xeetu xiraan la waaye dañ koy tudde al irdaaf jàppal na itam li ñuy tuddee al mu yéene aju kese ak boole yéene xumraak aj ñu koy tuddee xeraan ñoo bokk noo leen di defee xam nga ne aj ci boppam am na wër kaaba am dox safa marwa umra itam am na wërkaaba am dox safa ak marwa waaye boo boolee yéen yaar yëpp benn yoon xumraak aj dangay def rek benn wër kaaba ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ko nga def benn dox safa ak marwa ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ko doo beral kenn ku ci ne wëru kaabaam ak doxuk safa ak marwaam boo yéenee yaar yëpp xumraak aj boo defee ba àggal dañuy wax ne am nga umra ak aj yaar yëpp boo yéenee aju kese itam def bàggal ñu ne am nga aju kese te mel ni kon ndegam jëf ji jenn la boo doon seet ci xelum kese kese day mel ne xiraan yéen yaar yëpp am yaar yëpp mooy gën a yéene kenn ki muy aj waaye nag waa Malik ñoom dañuy wax ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ifraadu moomu la defoon te it ifraad waaye nag waa Malik ñoom dañuy wax ne yonante bi sallallahu alayhi moomu la defoon te it ifraad duñ ca santaane addiyu ndax addiyu moom li ci ëpp lu amul manqué rek lañ koy santaane bëgg mu mottali manqué ga moo tax xeraan ak tamatoox moom ñu digle ca addiyu la gën a jàpp ni nag te ñu bari moom lañuy def léegi mooy tamatoox ji nga dégg muy armal umra kese def ko ba àggal bu aj gi jege see nga daal aj teg ca moom nag daa xéewale lool baat bi sax ak tamatoxu loolu lay firi te xam nga xumra moom daa gàtt boo yéenee xumra gi da ngay daldi rek wër kaaba dox safa marwa boo naree aj teg ca nga jempu te bañ a watu nga daldi delluwaat na nga meloon amatul dara ñu lay aaye nga toog a toog nag ba aj gi jege si maanaam taxawaara fa jege rek nga daldi yéene aj def aj ga moom daal daa noppale lool lool ñu bari moom la def léegi te def ko taxuta wuuteeg digalul sëriñ bi xëy na seetlu nga ne yañu aaye ko armal daa bari lool te nag boo yéenee aju kese mbaa nga yéene yaar yëpp moom bala ngaa yeweku ba mën a génn ci yooye ñu la tere woon day yàgg boo defee nag tamato mooy yéene umra kese da dal daal noppi ca umra ga aayatul la dara nga amu yaatu ba ba aj gi jege si rek nga daal di yéene aj daal koy def ndagam nag yéene aju kese ak boo boole woon yéene umra ak aj benn yoon ñoo bokk jënd jëf ni ma ko waxe woon léegi naa njëkk a leeral kon yooyu yaar boo leen dee def te jëf ji jenn jee noo leen di defe door caa teg nag tamatoo mi nga xam ne moo wuuteeg ñoom nga xam ne dangay yéene xumra door a aj ana lu leen wuutale ni nga ko xame muy aj muy xumra la ca jëkka jëkk mooy armal te mooy dogu ci def ga armal googu nag daa am barab bu ñu diglee ñu defe ko fa foo mën di bàyyikoo ci goxi àdduna am na fu ñu la digal nga defe ko fa boo bàyyikoo senegaal nag tey jaari Madina da daldi bokk ak waa Madina fa ñuy armale ñu koy wax biiru Ali wala abyaaru Ali boo àggee fa ngay armale la ngay njëkk njëkk a def mooy sangu cangaayal armal te moo ni ngay sangoo janaaba ñoo bokk moom nag bu doon jigéen sax ju toll ci gis baax nga xam ni setut du teeñu digal ko ko mu def ko ndax wér na ci addis yonante bi digaloon ko jigéen ña boo jàppee nag ne boo àggee fa armale day xat ba doo mën na sangu na nga ko bëggee man nga bala ngaa génn sa néeg rek daal sangu ca ngaayul armal li sol sa yére yi armal bu dee jigéen moom aayewuñ ko sol lu ñu ñaw waaye bu dee góor moom na caraxlaay ak làmbaay ak daldi carax boole yooyu sunna la yére yi armal yi weex lañu ca gën a taamu waaye nag bu weexut it du ca wàññi dara man ngaa far nag layuwaale say we boo bëggee wat kawaru naq mbaa geneen kawar nga wat ko ba mu des nag kawaru bopp moom bàyyi ko noonu rekk ndax boo àggee ñu digal la watu mbaa jemp nga def ndigal la seetlu nga ne la muy tarax laayoo day mel ne ku ko woddoo te kon loola wër na cër ba waaye nag jéggale nañu ko te noonee mu tarax laayoo daañu ko may mu wut lu mel ne ak laxasaay ñu koy tuddee ceinture wala ñu koy tuddee camra takk ko ci ndiggam mel ne kon loola itam wër na ndigg la waaye dañ koo jéggale defal ko ca ak jàppandal ndax man caa def ay pièces am ak yóbbalam ak yamu ca bëgg a def waaye dañu ne nag kamara boobu mbaa laxasaay googu day taq ci yaramam lamu mu teraxlaayoo tew ca kawam waaye jëmmi séentiri boobu mbaa kamara boobu bu mu tegu ci kaw teraxlaay ga bu ko tegee ci kaw teraxlaay ga rek war a fay ak jotoo bul fàtte ne boo xasee armal doo sañ a muur sa bopp doo sañ a muur sa kanam bu dee jigéen nit dañ ko aaye woon muur kanamam wala muur ay tengam mel ne sol ay gaa nga xam ne kon ñoom ñaar lañ boole aaye muur kanam ndax nag sañ naa takk ay weer li gën wóor mooy daal am na ñu ne mën naa takk ay weer bu fekkee ngant tax ni ki day bañ naaj wu tàng wi yàq ay bëtam wala bu fekkee dañ ko opéré woon ngànt daal moo tax muy takk weer yi moom mën na ko waaye su fekkee du ngant lu gën a wóor mooy du saña takk ay weer ci gis-gisu waa Malik ca ngaayal armal li nga waxoon léegi dañoo bëgg mu sës ci armal ga armal itam dañoo taamu bu sës ci ak julli bu waajee ba àggal fekk jullik farata jot mën naa julli farata ja daal cee sësale armal ga waaye la gën nag mooy bu dee waxtu dagana naafila nga julli ñaar rakka loo jàng ca saar ya mu baax waaye taamu nañ rakk bu njëkk bu gannaaw faatiha qul yaa ayyuhal kaafiroon rakkab ñaareel gannaaw faatiha qul huwa ahad boo sëlmali daal armal fasaasa bu dee waxtu wu ñu aaye naafila te fekkul genn farata jot na armal rek armal ga sës ci julli dañ koo taamu rek waaye ñàkk sës ci julli du ko tee baax kon maa ngi toll ci wax ne waaj na waajtaayu armal ba àggal ba julli julli ngay jiitu armal ndegam jàppandi na jëmi armal rekk nag daldi di des kon bu dee aju kese la jàppa def day fas ci xolom wax ci am xelam ne saa boroom yéene na ma aj sa néeg bu tedd bii yàlla nag ma ko yombalal te nangul ma ko su bëggee boole yaar yëpp benn yoon mu dogu ci xolom te wax ci am xelam ne saa boroom yéene nama xomra aj sa néebu tedd bi yàlla nag ma ko yombalal te nangul ma ko bu dee nag ka bëgg umra ba noppi door a aj teg ca daañu ko leeral ca kanam kon nag armal gaa ngoog na daldi gaaw tàmbalee wax nag labbayka ndax gannaaw bu armalee wax labbayka sësale ca waru gar la su waxul labbayka ba mu yàgg rek baa faru ko wax sax benn yoon bàyyi na waru gar war a fay alamaan labbayka mooy mu ne labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk laa sharika lak bu dee jigéen buy wax labbayka da ko yamale ba ay noppam di ko dégg rek waaye di ko yëkkati bu dee góor nag moom dañuy taamu mu yëkkati ko yëkkati bu diggu doomu bu ko yëkkatee ca kaw li kaw day gaaw a sonn gaaw a xëx na yëkkati rek yëkkati bu diggu doomu teyit ca na muy taqoo la bayka ja na diggu doomu di ko wax rek bu sonnee noppalu bu noppaloo tàmbaliwaat ko ba amee lu ko dog ni ki lekk mbaa naan mbaa julli mbaa nuyoo ko jàmmante mu dellu salaat ko rek noona daañ ko wax na kenn koy bàyyi dëgg-dëgg taamuñ nag mu saxoo ko saxoo ko bu mujj mu sàppi ko nga xam ne laa mi koy tudd waaye xol bi jàppatu ko na digg doom rek ci yëkkati kàddu gaag taqoo ga bu dee wax noonu nag làbbay ka ba àgg ca kaaba ga nga xam ne wër lay bëgg def day bàyyi nag labbayka ji ba wër kaaba ba àggal ba dox safaak marwa ba àggal door a yeesalaat nag labbayka ja ndegam agsi na màkka noonu rekk moom yitteem yépp daa war a jëm ci wër kaaba gi wër bi ñu tuddee wërub nuyoo bu doonoon nag koo xam ne daa yéeni xumra kese bu agsee màkk wër ga muy wër umra gaa koy moom warug umra lay doon ci takk-takk daal bu fekkee ma nga ci fañ ko digaloon dañ koy wax miiqaat te it bi mu agsee màkka digganteem ak taxaw arafa yaatu na te it ba mu ñëwee ba dugg ci arum ja deful li ñuy wax irdaaf bu ci ñett sart yi dajee moom boo ak dem na def rekk wër bii ñu wax léegi teg ca dox safa marwa balaa dem arafa bu sàggan su ca ñetti sart yooyu daje woon te moom defut tawaaful xudóom wërub nuyoo boobu mbaa def na ko waaye ci gannaaw ba duxut safaak marwa mbaa safaak marwa ga da ko sësëri ca wërub kaaba ba bàyyi na warugar war naa fay alamaan ci ni may tegale maa ngi tollu ci bu agsee màkka di wër nag kaaba gi wërub nuyoo jàppal ne wër moom dañ cee sart amee yaari laab yooye nga xam ne benn ba mooy bu ko sangu farata waree mu sangu bu ko jàpp waree mu jàpp bu tiim dee farataam mu tiim ba ci des mooy bañ a yoraale sobe ca ba muy wër bu dee sobe su mën tàggool ak sàng awra lépp loo xam ne bu dee julli war koo sàng bu dee wër kaaba war koo sàng ci yaramam bu dee jigéen bu xësee su baax moom du mën a wër kaaba mën naa def mboolem nag ya ñu def ci aj ga muy armal ak taxaw arafaak yépp waaye wër kaaba moom du ko mën te demul ba bu amee nag lu mën a jëfandikoo luy tee mu gis baax te du ko wàññi dara ci wéru yaramam mën na koo jëfandikoo ndax mu bañ am gàllankoor ca aj ga boo agsee bay dugg am na bunt bu ñu sopp nga duggee ca muy baabu salaam bu duggee rekk day daal di wuti alxajar al aswad muy doj woowee ca kaaba ga bu ca mënee àgg fóon koo gimiñam mu daal koy fóon ak gimiñam te wax allahu akbar su ko mënta fóon te man koo raay ak loxoom mu raay ko ak loxoom te wax allahu akbar jël nag loxo ba teg ko ci gimiñam te bañ a muucu loxo ba bu ca mënuta àgg nag mu mépp ak fóonam maanaam junj ak fóonam te wax allahu akbar te mu xam ne nag juróom-yaari yoon yi wër kaaba ga foofe lay tàmbalee bu dee fóon ba mu fóonee ba siggi bu mënta fóon foofee mu taxaw tolloog doj wa foofu la wër bu ne di tàmbalee nga xam ni bu agsi foofa rekk muy aw yoon mu def ko nag ba muy juróom yaari yoon yoon wu ci ne bu tolloog doj wa na ko fóon door jàll bu ci mënta àgg mu junj ak fóonam te wax allah ku bara daldi jàll waaye nag yoon wu jëkk wa moom su mënee foon doj wa foon nga day àgg ci doon sunna te nag yoon ya ci des bu ko mënee foon itam foon nga lu ñu sopp rekk lay doon du àgg ci sunna bu mu fàtte itam ne bu dee wër kaaba ga néeg ba da koy féete ca càmmooñ loolu ab sart la ca bu tàmbalee war itam diggante foofee mu tàmbalee balaa àgg ci la ñu tudde ar ruknu sopp nañ mu wax rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana waqina naar bu àggee ca la ñu tudde ar moom da koy raay rek ak loxoom su ko mënoon fóon ak gimiñam itam du tax mu fóon ko ak gémmiñam da koy raay rekk ak loxoom teg loxo ba ci gémmiñam te bañ muucu loxo ba dafa am yaar yoo xam ne bu dee ci wër gii nga xam ne mooy wërug nuyoo bi dañu koy sàkku ci góor te duñu ko sàkku ci jigéen benn ba mooy su fekkee yaatu na ba mën a cal li ñuy wax lagg moom góor sunna la ci moom mu cal yett yoon yu jëkk ya ñaareel ba mooy wopp mbaggum ndeyjooram su wëree noonu kaaba ga juróom yaari yoon day dem fa ñuy wax gannaaw maqaamu ibrahim mu julli fa ñaari rakkay wër ga saa yu wëree wër goo xam ne gu war la rekk julli ñaari rakk yooyu itam lu war lay doon su ko mënee defe foofee ci gannaaw maqaamu Ibrahim baax na su jàppandiwul nag fu mu ko mën a defe rekk baax na waaye nag bu jullee ñaari rakka yooyu mu jàll naan ca ndoxum sam te naan ca bu baax a baax dox safaak marwa moo war a sës ci waru kaaba gi waaye sunna la mu delluwaat fóon doj wa ca kaaba ga door génn nag wuti safaa ba tey su mënta àgg ca doj wa mu yem fa mën a yem junj ak fóonam wax allah kubar daal di génn nag wuti safaa bu bàyyi ko foofee ca kaaba ga nag jëm ci safaa sopp nañu wax ci làmmiñam abda'u bi bada allahu bi inna safa wal marwata min sha'airillah safa aw doj la maru aw doj la te jëfewu ñoo yéeg bu dee góor bu àggee ca safaa sunna la mu yéeg ca kaw jàkkaarloo kaaba gi yéeg ga sunna la ñaan nga itam ca bam nekkee ca foofe ci kaw safaa sunna la bu demee ca marwa it noonu jigéen nag bu ko yéeg yombee te amul buuxante na yéeg waaye bu ko yombut mbaa mu am buuxante moom jigéen bu muy yéeg dox safaak marwa juróom yaari yoon lay doon waaye nag dem ba aw yoon la dellusi ba aw yoon la tey bàyyi ci safa dem ba ca marwa muy aw yoon mu bàyyi ko ci marwa ñëwaat ci safaa muy yaar yoon di ko def di wàññi ba muy juróom yaari yoon diggante safa ak marwa am na fu ñuy tudde diggante ñaari poto yu nëtëx ya bu fa góor tolloo lay sunna mooy mu gaaw gaaw bu baax a baax ba weesu diggante boobu door a dellu di doxe na mu doon doxe ci yoon wu ne nag bu dee jigéen moom loolu du sunna ci moom mën naa dox rek na mu mën a doxe dox safa ak marwa nag laab waru ca waaye sopp nañ ca mu amee ak laab moo ci gën sàng awra itam li tax mënta ñàkk mooy ñamuy taseel te waruñoo gis awraam war naa sàng awraam ba duñu ko gis bul fàtte ne ba ngay wër kaaba ak bii ngay dox safa marwa yaa ngi tollu ci fu nangoo ñaan kon na nga farlu ci ñaan bu baax a baax ñaanal sa bopp ñaanal bokk jullit yi beral ñaan képp koo bëgg beral ñaan soo mënee ñaane ñaan yi ñëw ci alquran mbaa ci hadis nga xam ne mën nga ko wax sa làmmiñ te xam nga la muy firi mooy la muy tekki loolu lañuy ñuy gën a sopp waaye nag bul fàtte itam di bari la ñaan yàlla ci saw làmmiñ la nga bëgg ndax làmmiñ wi nga nàmp ci ngay gën a mën a waxe la nga bëgg a ñaan gannaaw nag bi mu noppee ci wër kaaba gi noppi ci dox safa marwa na dellu nag di yeesalaat labbayka ja na ko daan waxe rek bu sonnee noppalu bu noppaloo dellu ko yeesalaat te mu farlu ci di jullee julli juróom ca kaaba ga ndax la ndax la addis ba ne jullee ci jàkkay kaaba gi genn julli dong moo gën téeméeri junni julli ci geneen jàkka sopp nañu bu ñu nee tey la juróom ñetteelu fan ci weeru tabaski ñu koy tudd yow mu tarwiya nga génne màkka dem minan la ci nag mooy nga fexe ba jullee ji fa tisbaar àggale fa bis ba fanaan ba xëy suba nga xam ne kon jullee nga fa tisbaar takkusaan timis gee suba te lépp nag bul di fàtte labbayka ji boo fanaanee mi nan xëy yaa ngi ci bisub arafa muy bisub juróom ñeenteel nga daal wuti nag arafa te bul fàtte labbayka ji soo àggee arafa te tisbaar jotagul dangay ngay di wax labbayka waaye nag boo àggee arafa tisbaar jot danga nekk ci yoonu Maalik foofu ngay bàyyee wax labbayka ci aj ji doo ko waxati boo nekkoon ci yoon wi dem nag tisbaar jot itam du ngay wax labbayka da nga gis nag ñeneen ñu nekk arafa tisbaar jot dutee ñu yooyu di wax labayka ndax loola mooy seenu yoon na farlu nag ci tisbaar googee ca arafa ja moom nga fekke ko ànd ak ilimaan ba ndax ilimaan dafay xutba ñaari xutba yu mel ni ni muy xutbaa ci ajjuma bu noppee ca xutba ya nag noddkat bi daldi nodd ñu julli tisbaar ñaari rakka buñ sërmalee noddukat bi noddaat ñu teg ca takkusaan fa saasa am na ne noddukat ba genn noddu rekk lay noddu du noddu yaar te dañuy wàññi tisbaar ga wàññi takkusaan ga ku ca nekk ñaari rakka ku dëkk arafa rekk moo dul wàññi waaye koo xam ne dëkkoo fa donte fa nga bàyyi ko mëtul sax ndox wàññi du teel lay sunna mooy nga wàññi yaari julli yooyu boo nekkul foofee fa ilimaan ja itam fa nga nekk rek nga boole fa yaari julli ya te wàññi leen taxaw googu ñuy taxaw arafa nag ci bëccëg bi jëm jant ba soo dee ci yoonu Maalik warugar la woo xam ne soo ko bàyyee alamaan wara la ñoom waa Maalik li ñu ne taxawaay ba gannaaw bu jant ba soyee mooy farata moo mënta ñàkk moo tax gannaaw bu jant ba soyee dañu fay taxaw as ndiir door faa bàyyikoo nag wut si musdalifa nga xam ne fa jant ba soye ci guddi googee digganteem ak fenkuk fajar boo fa teewul ci arafa rek aj raw na la bu déwénee nga ñëw fay si ko waaye boo fa teewee lum néew néew rek dangay am taxaw arafa aj rëwu la dañuy dem ba musdalifa jullee fa timis ak gee boole leen boole leen mooy julli timis fa saasa sutale ca gee te wàññi gee ga julli ko ñaari rakka foofee nag ca musdalifa nga wàcc fa diir boo xam ne sipp ay bagage xaj na fa waru gar la boo fa rekk jàll wàccoo musdalifa daal di war a fay alamaan la gën nag mooy nga wàcc fa fanaan fa boole ja boo fa fanaanee ba jëli suba daal di dem taxaw ca almashar alxaraam di ñaan di ñaan ba bi di bëgg a fenk nga bàyyi ko fa nag dellu minan minan googee nga bàyyi ko woon ñëw arafa bul fàtte bi nga nekkee musdalifa nga faraale fa juróomi yaari xeer ndax boo àggee foofee ci minan dañuy sànni jamara ba tudd alxaqaba moom rek la ñuy sànni ci bisu fukkeel boobu dañoo taamu nag ay xeeram nga fore ko foofee ca musdalifa boo bàyyi ko musdalifa jëm minan am na xuru tudd muhassir boo fa tolloo sopp nañ nga gaaw ba weesu ko doora doxe nanga doon doxe bis boobu mooy bisu fukkeel bu dee ci nun muy bisu tabaski boo agsee minan da ngay gaaw sànni jamra ja tudd alxaqaba juróom-yaari xeer lay doon mu ya nga fore woon musdalifa xeer woo sànni rek boole ci waxaale allahu akbar boo fàttee fore xeeree ci musdalifa nag nga for rek foofu ay xeer sànni boo sànnee jamra jooju da daldi rendi la ngay rendi mbaa loj la ngay loj waaye léegi daa mel ni daa am ñooy waqanteel ba juboo rekk ñu defal la loola watu nag moo cay topp bu dee góor watu ga moo gën jemp bu dee jigéen moom jemp rekk lay def du saña wat boppam ab nel jigéen wat bopp ab nel daa araam lu may ci ngànt lu mënta ñàkk bu xësee sànni nag jamray xàqa ba jooju da dal nay yewiku yewiku bu ndaw yewiku bu ndaw mooy lépp li la aaye woon ngir armal ga léegi aaye tuñu la ko ba mu des nag yett yi jote góor ak jigéen ak rëbbu ñu sib nag lat lañ du àgg ci araam ak sib lay doon moom lat ko lañ boobee ñu aaye woon xëy si nga minan sànni jamaray àqaba rendi mbaa nga loj mbaa nga def lu ko bokk watu mbaa jemp da cay topp kon daldi dellu màkk defi tawaaful ifaada tawaaful ifaada loolu mooy waxtoom waaye nag ba li fekk weeru tabaski di dee boo ko fi defee duñu la teg alamaan bu tam xarit te defoo ko nag faw nga war a fay alamaan jëmmi wërga nag moom na ko xamee woon dara soppi ko ba sax julli ga ñaari rakk ci gannaaw wërga lépp benn la xanaa rek bu dee góor mu fàttaliku ne tawaaful ifaada deesu ca lagg deesu ca woq itam mbaggum ndeyjoor bu noppee ci tawaaful ifaada te doon kenn ci ñaar ñi may waxtaane muy ko yéene woon aju kese mbaa ka yéene woon xiraan ndegam moom doxoon na safaak marwa dal nay yewiku yewiku bu mag baa mag ci bii mu defee tawaaful ifaada te loolu mooy la desoon ca yañ ko aaye muy jote góor ak jigéen ak rëbbu ak sib gañ siboon lat ko lépp jeex na aaye duñ ko dara dara dara kon mën na ma taxaw foofu ci ba bisu fukkeel ba ñëwee ba ñëw ba def tawaaful ifaada mu wëlbatiku nag wax ka def tamattu te mooy xumra kese wëlbatiku nag bëgg aj lu ko wutaleeg ñaar yi ma waxtaane ba foofu la leen jëkka wutale mooy moom bu dee armal day yéene umra kese day fas ci xolom wax nag cim xelam ne sunu boroom fas na maa yéenee xumra sa néeg bu tedd bii yàlla nag ma ko yombalal te nangul ma ko daldi def nag omra kese te mooy daldi jàll wër kaaba jàll tox safa marwa daldi jempo mu daldi dellu solaat ay yéreem amatul dara luñ koy aaye mu bàyyi nag ba ak gi jege si mel na ñu ne tey jii yow mu tarwiya muy juróom ñetteelu fan ci weeru tabaski wa mu dellu nag yeesalaat waajtaayu armal ndax mën a dugg ci aj ga day dogu ci def aju kese wax ci am xelam ne sunu boroom yéene na ma aj sa néeg bu tedd bi yàlla na ma ko yombalal te nangul ma ko su fekkee bis boobu doon bisu juróom-ñetteel ci weeru tabaski mën naa daldi wéy minan fexe ba jullee ji fa tisbaar la daq ak la cay topp ni ki fanaan fa xëye fa dem arafa ak la cay day topp ni ki fanaan fa xëye fa dem arafa ak dem arafa jóge fa ñëw musdalifa ak jóge musdalifa dellu si minan ak sànni ga jamre yaag yépp rek moom na ma ko waxtaane woon ci ñaar ñee ñooye moo képp amuñu genn wuute te itam bu xëy see minan ba sànni jamre xàq ba dal na yewiku yewiku ndaw ga dal na yewiku yewiku gu ndaw ga mooy jamre xàq ba dal na yewiku yewiku gu ndaw ga mooy yiñ ko aay woon yépp aayatuñ ko ko ba mu des yett yooyee wuute ga muy wuuteeg ñaar ñee ñu weesu woon foofu lay gën a feeñe ndax moom def tawaaful ifaada du ko tax yewiku yewiku gu màgga ndax daa defagut dox safaak marwa ci aj gi ba muy xumra doxoon na safa ak marwa waaye nag aj gi moom defagu ci dox safaag marwa kon bu defee tawaaful ifaada day jàll dox safa marwa door yewiku yewiku gu mag magga mooy aayatuñ ko jote góor a jigéen aayatuñu ko rëbb sibatuñu lat ko mel na ne kon tegale naa ñett ñëpp kenn ku ci ne na muy defek ajam topp ko topp baax si ci bésu fukkeel bi ba def tawaaful ifaada kon ma jàll ci wax ne gannaaw def nañ tawaaful ifaada ba àggal la ca war topp nag mooy dellu daldi fanaani minan gaaw gaa dem nag lañu gën a taamu nde moom boo ko fa sooyee rek mu daldi baax mel ne bu fekkoon ne tey ji nuy waxtaane muy bisu àllarba day bisu fukkil ba ko def tawaaful ifaada day dellu fanaani minan guddi gi nu jëm muy guddi fukk benn ak guddi ga ca topp muy guddi fukk ñaar mu su ko ñàkk fanaan foofa ca minan koo xam ne rekk fanaanu fa yaari guddi yi mba am na ca kum fa fanaanut ba am na ci goo xam ne bu muy ñëw mi daa fekk ku xaajoon guddi ga lu ëpp benn xaaj ba jàll faaw mu war a fay alamaan ndax bàyyi na waru gara tey jii di àllarba bu ñu ne woon mooy bisu fukkeel ba nga gontu fanaani mi nan muy suba ak gannaaw suba muy ajjuma bu tisbaar jotee dañoo war a sànni yetti jamra lañ ci gën a taamu nag mooy bu tisbaar jotee nga waaj daldi di gaaw sànni jamra yi door a julli tisbaar sànni jamra yi dañ koo sàkkal waxtu joox ak waxtu fay bor la dale ba tisbaar jotee ba jant bi mooy waxtu joox ga guddi ga mooy waxtu fay ga ku yéex a sànni itam ba jant bi danga da nga war a fay deret te du tax sànni ka wàcc la bis bu ne ci ñaari fan ñooñu na dem ci ñetti sànnikaay yooye bu ne mu sànni ca juróomi yaari xeer teyit dañu leen di toftale jiital ba jiitu mooy sànnikaayu ba sës ca jàkkay mi nan teg ca ba ca topp mooy ba ca digg ba mujje nag alxaqaba xaqaba mu sànni ca bisu fukkeel ba daa bokk ci yi muy sànni ci ñaari fan ñii waaye bu ca nekk nag moom lay mujjee sopp nañu gannaaw bu sànnee jamara bu jëkk ba ak gannaaw bu sànnee jamarab ñaareel ba mu taxaw fa ñaan ñaan gu yàgg ba mel ne ku jàng saaru baqara njàng mu bar bu sànni xaq ba ma ciy mujj nag moom duñ fa taamu toog fay ñaan ñaari fan ñooñu muy alxames ak ajjuma sànni jamra yi mënta ñàkk bisu ñetteel ba nag ci misaal mooy gaawu bu yàkkamtiwut mën naa xaar sànni gaawu muy ñetteelu fan ya waaye bu yàkkamtee ajjuma bu sànni rekk daldi gaaw génn minan bala ko faa jant soyee ndax bu ko jant soyee foofee ca minan faaw mu wara fanaan xaar ba sànni bisub ñetteel ba muy gaawu sànni jamra yi nag moo mujj ci aj gi da cee topp rek mooy waaj ba jëkk dem wër kaaba ga wëru tàggoo nañu daa wëri rek lay wëree ba tey amul genn soppi ko te bu dee ci yoonu Maalik wëru tàggoo gi lu ñu sopp rek la bu dee jigéen mu amee deret bu yàkkamtee mën naa bàyyi bañ a xaar wëru tàggoo googu kon mën na noo jàll ci wari gar yi wari gar yi mooy yi nga xam ne boo ci bàyyi aj ga dana baax waaye danga nga war a fay alamaan alamaan nag saa yoo déggee ma tudd ko rek mooy addiyu addi gàtt muy xar ak bëy moo ci gën a tuuti nag topp ca gëléem moo ci ëpp suñ ko nee rek war ngaa fay alamaan ngir bàyyi waru gar na xam ne am xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem lenn la cay doon bu dee lu ñu rendi mu rendee ko foofee ñu ko war a rendee bu dee lu ñu loj mu loje ko foofa man ngaa njëkk a tudd armale barab bañ koo diggale mu armale fa bu weesoo barab booba armal faaw rekk mu war a fay alamaan de sax bu xamee ne weesu na ko laata muy armal mu wàññiku door armal moom kenn du ko alamaan ñaareelu waru gar wax labbayka bu armalee te waxut labbayka mbaa wax na ko waaye dafa armal lu yàgg door koo wax daldi di war a fay alamaan ñetteel tawaaful xudduum wërub nuyoo boobee ku mu war te waxoon naa ko muy war bu ko defut mbaa def na ko waaye tegu ca dox safa ak marwa mbaa da ca caa sësaliwut daldi war a fay alamaan ñeenteel mooy buy wër kaaba ak buy dox safa ak marwa mu dox ak tànkam te bañ a war kenn bañ koo yenu ndegam mën naa dox tànkam ñoom waa Malik sax dañuy wax ne su ma nee dox ak tànkam ca wërkaaba ak dox safa marwa defu ko bu demoon bay ñibbi te soreegut daa war ñëw dellu waraat kaaba doxaat safa ak marwa te dox tànkam bu xësee sori nag ca dem ba mbaa mu far ñibbi ba àgg mu fay al wër nga teg ca ñaari ràkkay wër kaaba ifaada julli ñaar rakka yooyu ci gannaaw wër ga lay doon ñaari rakkay wër ak ñaari rakkay armal ñoo yemoo luñ sopp ñu jàngu ko ci gannaaw fatiha ja ràkk bu jëkk ba gannaaw fatiha qul yaa ayul kaafiroon rakkab ñaaral gannaaw fatiha qul huwallahu ahad nga teg ca taxawaay ba ñuy taxaw ca arafa njëkk jant bay so taxawaay boobu bu dee ci waa Maalik ñoom waru gar la agul ci farata nga teg ca xeeti jamra yi jamra yépp yam jamra bu ci nekk rek waru gar la boo koy bàyyi rek daldi war a fay alamaan nga teg ci yaari guddi yooyu ma la waxoon ne woon mënuñoo ñàkk ràññeeloon naa ko bu ci amee guddi goo xam ne fanaanoo ko mi nan mbaa bu ngay ñëw fekk na la ëpp ci guddi ga wéy rek nga war a fay alamaan fanaan nag guddik ñetteel ga ak sànni bëccëgum ñetteel ba moom dañoo waxoon ne ni ngi ci sa coobare bu la soobee def ko bu la soobee bàyyi ndegam da yàkkamte sànni jamra yi nag boo ko mënut mën ngaa wutal ku la sànnil waaye nag du tee nga fay alamaan nga xam ne kon nga mën a sànni jamra te sànniwu ko ak ka ko tële ba tax mu yebal ku ko sànnil ñoo ci faw ñu fay alamaan lañu wutee mooy ka tax sànniwut moom du am bàkkaar ci ñàkkaa sànni ka tëlewut nag mënoon naa sànni te sànniwut kooko mooy fay alamaan ba noppi gàddu bàkkaar ba nga teg ca watu mbaa jempu waru gar la waxoon nañ waxtu wañ ca taamu lu mu ko yéexe yéexe nag na fexe ba def ko bala weeru tamxarit a teru bu yéexee watu ba weeru tamxarit teru rekk mu war a fay alamaan saye boo wàññiwaale sànni jamare xaq ba doora def tawaaful ifaada bisu fukkeel boobee boo njëkkee def tawaaful ifaada te fekk sànnee goo jamra rek war a fay alamaan ba tey bu dee ci ñoom waa Malik jiital ga sànni jamra door watu waru gar la bu watoo rek te sànniwul jamra xàq ba war naa fay ak joto ndax watu gam watu njëkk sànni jamra yi xàq ba bisu fukkeel boobu nag bu defoon tawaaful ifaada watu boole ca te fekk sànni gul jamray xaq ba ñoom lañu daal di wax nekkoon kon yaar yépp koy war war naa fay ak joto ndax watu gam watu njëkk sànni jamray xaq ba war naa fay itam alamaan muy addiyu ngir njëkke gam njëkkee tawaaful ifaada door a def jamray xaq ba yooyu mooy warigar yi nga xamee ne bu ca bàyyee benn rekk war a fay alamaan muy addiyu waaye aj ga du yàqu bu ñu nee nag bàyyi ga du yàq aj ga bu tax nga ne man jekku naa alamaan bi kon day far noppalu rekk tay ca sonn te fay alamaan bi ku bëgg tuyaaba kat day farlu ci def lañ ko digal kem kàttanam su ko tëlee nag mu xam ne dogal baa mu daldi fay alamaan ba te yaakaar ci yàlla mu nangul ko taamu nañu nag li feeg mi ngi nekk ci barab yu sell yooye te ndoxum sam-sam jàpp ndee fa noona muy bari la naan ndoxum sam te bu koy naan lu mu bëgg rekk fasal ko ca boppam ñaanaleel ko bokki jullit yi ak képp kum mu bëgg a ñaanal ndax la addis ba ne maa u zamzam lima shuriba la ndoxum sam moom boo koy naan loo ca fas rek yàlla mën na la koo defal kon lépp lum bëgg rek muy xam-xam bu am njariñ mbaa jëf jiw wala wërsëgu yaatu te lew lépp lu mu bëgg rek buy naan ndoxum sam-sam na ko ca fas fasaale ko bokki jul yépp ku dem nag foofee ca aj ga te fekk moom dawul fonk waxtuy julli juróom mbaa boog muy jigéen joo xam ne dawul sàng yaramam na mu ware su demee foofee ca barab yooyee ba tàmmee fa joox julli juróom ci seen waxtu bu dee jigéen mu tàmmee fa sàng yaramam ak di moytu lu aay bu ñibbisee day jéem a wéy ca noona mu yokk rekk te bañ a wàññi ko ndax bakkan lu mu tàmm rekk dal cay mën a wéy doxal ko ba noppi nag bëgg koo delloo cib coono la bakkan di bañ ku dem itam madina ne day siyaa yonent bi sallallahu alayhi wa sopp nañu buy àgg rek fa saasa daal jawali jàkka ja fa séenee taxaw ci siyaare ba njëkk def siyaare ba doora def leneen la gënit mooy bu dee waxtu woo xam ne aayawuñ ca naafila mu njëkk dugg ca jàkka ja julli fa ñaari ràkka muy nuyu ba mu nuyu yàlla boroomam door jàll nag siyaara yonante bi sallallahu alayhi wa alihi te li fekk ma nga Madina itam muy farlu ci di jullee julli juróom ca jàkkay Madina joojee te di taamu di ko defe Madina joojee te di taamu di ko defe